xam nga kalimatu xaqin urida bi al batil ali ibn abi talib ko jëfan zeynul abidin doon ko ci moom cheikh doon ko ci zeynul abidin cheikh alxaaji omar doon ko ci cheikh mawdo doon ko ci moom sëñ babacar doon ko ci mawdo ba ci man mii di wax ak yéen kalimatu xaqin urida